fataratas ki gées dégg nga de buso santal yàlla neel alhamdulilah intégré nañ la ci suma groupe yow xam nga ne ñun famille Baye Gor Mbaye événement ñoo ci mën muy ngénte muy tamxarit muy tabaski eh, mbaa korité eh, eh. lépp luy événement loolu dafa leer de ñooy borom de la lépp luy événement ci réew mi ñooy kii ko moom waaw bu soo yow fi mu toll nii nag laajuñ la sa avis ak ay naan la amoon ci groupe bi ndogal. yow di exécuter rek di dox suñuy waaw bàyyi suñuy tere dañuy répéter suñu répétition amul lieu mhm. fu ñu ko sentiree fa lañ koy defee yow xam nga yow ki ci kër gi nii lañ koy defee dañ koy waxtaane jugal toog jugal. bu yow bàyyil tànki jàmbur yi. cararax cararax benn benn benn para taxit jakin pararal pararal baax bit bi jaar jaar jaar jaar jar bit bi jaagin. paran paran pax bit bi jaagin bit bi jaagin. paran pax. géej jag raw raas gis. dëgg Bousso doo tàccu. waaw li nga fi def lan la. mais Bousso doomu géwél nga. Ah, géwél laa de mais ni ngeen dégguma ko. Bousso je suis. tu es. Ils sont. Nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Et Guillaume Mungewel, Tadje Bon, Tadje Bon, Sama Tadje, eh, Abdou Jamba, Winyari Malaikala, ci kaw lay jóge. wallay kii sama kii sama busa wallay. mu ne yaay ji ay busa bul busa bul pour ma da ngeen fàtte temps bi. yow ku la daane lu tàgguwoo mbaar. Eh, eh, eh, kii Ndioufane. répétition yi neex na torop mais foog ñu ut stratégie. Mhm. géwél yëpp bu nuy wayaani bu nuy dem xew ak fu mu mën a doon du ñu yóbbu dara. damaa bëgg bu nuy dem ñu lijjanti dara yóbbu teraanga fu nuy dem ñu yóbbu fa teraanga. waaw waaw nañ lijjanti xaalis ma yéen daal kon daal ngéwél da ngeen ko def business. waaw waaw. wayaan business. 500000 yi ñu néewoon. cinq cent mille lan. cinq cent mille ngay am foofu gént rek. waa mais Ndioufane yow dañu ñuy bëgg a fonto wala la. noonu la noonu laa mel noonu lañ ma bindee tamit ah. Ndioufane munoo bàyyi bu nu sérieux nekk ci répétition nekk ci moment de sérieuxité ngay ngay ngay dugal sa. Eh, yow mi yaa sérieux wul yow lan la ma ci noonu da nga koo lekk. non non lekkul dara yow bu sa xaw ma de. waaw ah. non non ci jox ko dara damay damay wax ni rek. damay euh, xoolal bu nu bu nu demee maanaam temps bi ñuy tëjee. temps bi jàpp jàppale ko yow. déwénati gét gét jaraw rakk gét déwénati gét gét caga jàkkit na ko fekkee nekk ni jëm gés gés caga jàkkit gét xoolal déwénati gés gés caga jàkkit yow bu na yow déwénati gét gét caga jàkkit eh nanu ko fekkee déwén gés gés caga jàkkit taas mbax dinu rek bu sa mun ngaa bàyyi bàyyi maa yëg loolu yëguma c'est gi nga biisu yow da nga waane yow yow man maa la ko présenté sama xarit la boo ko xamee man maa tax nga xam ko léegi lan moo tax eh lan moo lan mooy ay ay affaire de surprise affaire yi man jotuma si jot jotuma si jotuma si bu yow yooyu noonu ay affaire la nit bu la defalee tera yow xam nga teraanga yow waaw waaw li baax na baax na yow loolu yëpp bëggoon li jënd da nga waane rek moo la jëf dinaa dinaa la man dinaa la rappelé. xanaa bala ngaa yuuxu nit ka laajte. xaalis bi la biiju yónnee pour man génnee ko ma jox ma ko man damay dem. da ngay def baadoo la ma jox ma sama xaalis damay dem. mënoo tey nga wax ak nit yi. teyu sama xa déglu ma damay déglu. gis nga keroog ba ma ñëwee sa kër ngay àllu sama kaw ba ma mujjee dem. 500000 laa la doon indi damaa ñëw nga dàq ma sa nijaay laa dajal ci mbedd mi. jox ko 500000. sama sama ban nijaay nga jox. ñaata nijaay nga am sama ndijaay moo sama ndijaay nga jox sa ndijaay laa jox sa man si yu ñàkk a fay day ma ci. sama ndijaay moom nga jox sama xaalis. kañ nga jox xaalis bi. sa jox naa xaalis bu yàgg keroog ci mbedd mi lañ daje ma jox ko. Hmm. soo bëggee sa xaalis nga dem laaj ko sa ndijaay man sa yu ñàkk a fay day ma ci. sama ndijaay moom moom ak ni moom li bu jugee di jaay gra. problème am na de. jigéen moo jël 500 ñu jox ko la xew ci kër gi du si jot si jot. Ah, ah ku wéerul lu muy jot 500000. yow Senghor ni nga jël 500000 jox ko Senghor mu booyal 500000 fu ñu eh, nu ma di yaay Senghor doo ma jox 500000. 500000 lan moo la ko jox. léegi daal léegi daal ñu séddoo ko wala ma xaajal la ci. waaye man sax sama yoon newu ci su waxee ma ne nijaayam laa ko jox du mujj fenn kenn du ma ci kenn du ma ci saaga. Ah, xanaa ñu boole ma caméléon.

suñu mu la def mu sama xaalis mu dem encaissé ko jël ko dem lekk ko ba pare man bëggu ko benn problème dama jox sama xaalis wala tey kër gi day am moor. cee cee cee cee booy bi moom la. ñaata la. cinq cent mille la. moom moo ko tey dem jël ko ba pare ñëw faan moo ko jóg. waaw. Hmm. bëggu ko benn problème. ba booy lan moo tax respecté woon promesse. mi jaay. day day génn nag moo ko tey. Eh, booy mi jaay eh. eh, booy. damay wér damay wér. wértu wértu ba moo ko tey. damay wér damaa dugg xel wala damay wér. mi jaay génn jox xale bu xaalisam. moo ko benn dëkk day génn. waa da foog yow. gis nga ba pare ma may sawra ba pare moo tax ngay toog foofu rek góor jigéen bu pataa ba ko doon yaa ngi yàq deru góor jigéen ñi de nga ne. génn ma. sama xaalis

Eh, eh, mais ma yow xoolal naa dee si sa xol bi. yow nag communiqué di nga xam ne ba may bànn bànn woo. waaw baax na yow dafa lu neex yow baax na. yàlla eh, boobu de. ok ok yow yow ok yow yow ok. waaw ok yow eh yow si ngam mënoo tëj sa gémmiñ wala. si ngam da nga mën a tëj. ba kii naan. lu bandi di ndoroon lu war a nekk jikkoom waaye dama dul ibbi dama dul ibbi yow toogoo ci biir rek ci génn di ibbi di dooree def affaire toppee jéeri baax na waaye jërëjëf yow réewoo wa eh, yow réewoo yoo xam ne moo la met arrêt bu nga jël ñuus naa la kuu boo xam ne xam naa di ko dof balaa ngaa dee